salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki internet yi yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy topp ci info 15 ñu ngi am mbégte kontaan te dellusiwaat ak yéen rek comme ni ñu koy defee semaine bu jot bu nekk ñu daal di ñëw daal di leen defaral benn jàngat. Euh, jàngat bi nga xamante ni moom la ñu fas yéene def ci semaine bii nag dañ ci waxtaanee ci li nga xamante ni moom la ñuy wax tontine coffre tontine coffre nag mbir la boo xamante ni c'est rare nit xëy suba ba ngoon jot te du dégg baat boobu surtout ñi nga xamante ni ñooy jëfandikoo. li nga xamante ni mooy yenn ci moyen de communication yu ci mel ni WhatsApp Facebook wala sax Snapchat ñooñu moom képp koo xamante ni yaa ngi jëfandikoo yooyu c'est nga xëy suba ba ngoon te doo koy faral di dégg laata nag ñiy soobu ci biir jàngat bi ñu bëgg a def dañ leen di dëgtal kàddu yi nga xamante ni kii nga xamante ni bokk na ci ñuy jëfandikoo tin euh, tin euh, tontine yi mu expliquer ñu naka la mbir moomu di tëddee bu ko defee buñ ko dégloo ba noppi ñu daal di soog a ñëw ci jàngat bi ñu fës a def. damay dikk wax leen nan la ñu war a expliquer nit ki pour mu comprendre mbir bi lii kese la ab liggéey la liggéey bi nga xam ni da ngay dugal investissement man sama investissement ci nit laa ko investir damay def investissement euh, pécunier pare mooy xaalis. ba pare def investissement personnel c'est-à-dire ma jóg wuti mais nag ki may wuti dama war a xam la laa koy wax ba su ma ko waxee automatiquement mu mën a comprendre mu jël ay responsabilités su ma demee naan ko tontine xam nañ ni ay tontine dafa bëri naxe lii du tontine dama ko naan automatiquement lii daal liggéey la liggéey bi mooy lan da ngay investir joxe nga cinq mille francs wala dix mille francs wala vingt mille francs après nag nga dem wuti ay nit nit ñooñu nga expliquer leen ba ñu comprendre mbir mi ñu comprendre ni mbir mi da ngay dugg comme invité invité mooy ku nga xam ne dafa ñëw indi xaalisam invité la wala investisseur da nga dugg comme investisseur ñëw joxe sa contribution mooy sama coopération man dama indi cinq mille cinq cent joxe dem nag dugg si mbir mi commencé liggéey ñu ne boo jógee si invité bi da ngay dem directement si promoteur promoteur mooy lan mooy nit ki nga xam ne mooy wër di def propagande di wax expliquer mais loolu ab liggéey la yombul yéen ñëpp seetlu ngeen ni yombul parce que wax ak nit ba mu comprendre dafa métti boo ko expliquer nag ba mu comprendre mu ñëw bu ñëwee sama morom yëpp def loolu man ma jógee si promoteur dem automatiquement. ci organisateur ki nekkoon invité bi moom mu ñëw si promoteur moom nag foofu la liggéeyam di commencé ndekete ndekete nekkul balaa ngay dugg ngay liggéey bi nga duggee ba pare ngay commencé liggéey donc ñun suñu temps bi ñu joxee moo gàtt parce que dañoo yàqamti bu ñuy départ dañoo waroon wax quinze jours nga xam ne nit ki di nga ko mën a may au moins benn ba ñaari fan mu wut ay nit foofu la ñu defee erreur erreur bi foofu la nekk mais nous, ñun dañ ko hérité c'est-à-dire nous ñu ko expliqué nous avons ko expliqué waye xolé xol créé la créé 15 jours la wax mbir war dox 15 jours bala ñu tëj groupe donc ce qui veut dire que ni ci 15 jours yoy war nga permettre nit ki mu wuti parce que invité encore convaincre expliquer ko bu mu comprendre mais nit mëno ñu en deux minutes expliquer ko mu comprendre parce que lii dafa xaw compliqué donc dans en gros nous la. boo jógee invité nga dem promoteur après le promoteur nga dem organisateur yaa war a organiser groupe bi am ñoo xam ne dañu nekk organisateur waaye duñ fi def dara dañuy toog rek boo demee foofu nga dem nag koof mbir maa ngi noonu donc daal yaakaar naa ni leer na lii buñ ko expliquer nit ñi ba mu leer seen bopp koo ko wax da kaa dimbali moom dimbaliwu la de yow yaa ko dimbali loolu il faut nit ñi comprendre ko da nga koo dimbali voilà kon nag euh, ñoo déggandoo li nga xamante ni moom la ngóor si expliqué ñoo ko déggandoo ensemble euh, bon li ñu bëggoon a wax nag mooy gis nañu li nga xamante ni loolu la wax mooy mbir mi ni nga xamante ni noonu lay noonu lay tëddee jot na ko expliqué nee na tey ki nga xamante ni mooy administrateur bi mooy promoteur bi moom dafay invité ñaari nit ñaari nit ñi kenn ku si nekk somme bi nga xamante ni moom la ñu laajte moom ngay joxe su ko defee ñaar ñooñu tamit invité waat ñeneen ñaar ku ci nekk tamit joxe somme bi nga xamante ni moom lañ laajte noonu nga koy toppalantee toppalantee ko noonu ba li nga xamante ni mooy groupe bi daal di dal di daal di mat ba groupe bi mat su ko defee ñu ni bu groupe bi matee ki nga xamante ni moo nekkoon ci kaw ñu jox ko xaalisam keneen yi yéeg ainsi de suite noonu lay toppalantee ci li ñu wax ba ñëpp daal di jot seen xaalis mais nag dafay jaaru jamono ji tamit à chaque fois ñuy raisonner di utiliser suñu xel ci lépp lu mën a doon lu ne euh, mbir bi bu ko xoolee dañuy delloo. ci atum mille 1920 atum cent 1920 lu ni mel xawoon na am mais boobu benn italien bu mag a mag a mag buy wuyoo ci turu buy wuyoo ci turu euh, ci turu Ponzi moom moo ko daan faral di def moom naxaate kat bu mag a mag a mag la woon boo xamante ni italien la woon nan la daan def da daan ñëw tey créer genre pyramide bu mel noonu comme genre chaîne bi ñu wax noonu rek euh, lu mel noonu la daan teg ay jamono tey pour nag mu mënoon a convaincre nit ñi il faut que mu am ñoo xamante ni ñooñu dañuy bokk ci ñi nga xamante ni ñooy ñi nga xamante ni dañuy jot seen xaalis kon tey boo xoolee am na ñoo xamante ni nan la ñuy convaincre nit ñi mooy man am naa ci preuve gis naa koo xamante ni teggi na xaalisam man gis naa ci plusieurs personnes yoo xamante ni nee nañu ma ci mbir bii nii jot nañ ci récupérer kenn ki nee na ma jot na jot na quatre-vingt mille raqam jot na cent deux mille mën na ne loolu lu mën a nekk la waaye lan moo leen ci mën a fekk ëllëg loolu nag lu ñu war a xalaat la parce que tey bu fekkente ni yow dañ la ni da ngay joxe 5000 wala da ngay joxe 2000 wala da ngay joxe 1000 francs wala da ngay joxe 500 su ko defee ñu jox la nangam wala boog balaa ñu day jox nangam boo ko joxee ba pare dangay invité nangami nit ñooñu nga sensibiliser leen ñu invité yeneen nangami su ñëpp joxewee ñu jox la nangam ainsi de suite ainsi de suite ñu ni noonu lay noonu lay tëddee. waaye nag ku ci nekk war na bàyyi xel comme lu ñu wax que ni ponzi boobu noonu la ko daan doxalee day fexe ba moom ñii jot seen xaalis bu ñuy jotee seen xaalis rek. Euh, ña ca des ci lay ci ñooñu la ñuy xool ni comme ñi jot nañ seen xaalis rek kon ñun li ñu nekk nii lu baax la su ko defee nga ciy topp di ci topp ba un jour su ko defee euh, ba un jour ñi ñenn ñi soog a xam ne ndekete ponsi boobu mi ngi leen doon lor loolu nag mooy xaw a moo ñuy xaw a xeeñ fii ñu déglu kii nii nga xamante ni euh, waa ji nga xamante ni moom tamit mu ngi ciy wax nii ba pare ñu daal di dellusiwaat. maa ngi remarqué benn affaire que gars yi ñu ngi ci réseaux sociaux yi ah. ci tele bi di di wax ay coffre yi arnaque laak ah, affaire de franc-maçon laak ay riba laak ay lu yomb laak xam nga ku nekk di jéem a wax lu la neex quoi loo xam ne kenn xamul lu mu doon sénégalais moo tàmm dégg naa dégg naa moo rey seen maam yéen ñëpp dégg naa moo leen rey parce que nit nit woo na ma ne ma cinq mille cinq mille cent cinquante ngay dugal après nga am quatre vingt rek dafa yomb dafa yomb boobu noonu mooy lan lan moo fi yomb nga yaakaar na ngay ñëw du dugal cinq mille trois cent cinquante toog jàpp sa njàmbur doo toog jàpp sa njàmbur de loolu amul na affaire yi dafa metti coffre bi dafa metti ñi ci ñi ci jot xaalis xam nañ li ci ne dafa metti amul dara lu ci yomb liggéey la liggéey bi mooy lan déglu ma bu baax li ma lay wax liggéey bi mooy lan mooy que ni yow soo soo indee cinq mille trois cent cinquante da nga am droit obligation indi ñaari invité ñaari invité ñaari invité yooyu dañu am droit ñoom it indi yenen ñaari invité yenen ñaari invité yooyu am droit indi ku ci nekk yenen ñaari invité manam ku dugg ci groupe bi da ngay indi ñaari invité ku dugg ci groupe bi da ngay indi ñaari invité Non la chaîne bi di démé ku nekk di téggi di téggi di téggi di téggi di téggi ba affaire yi mat tour la war a doon instant bi lii nii xam nga li ñu naan dimbalante lii ci la bokk dimbalante lii ci la bokk parce que dimbalante ci jaamu yàlla la bokk tamit buñ ko fàtte. ñu teggi seen 80 vingt ñi nga xam ne am nañ bénéfice 75 mille mais mun nañ yéene waat mun nañ tourné waat ñoo duggaat ci groupe bi chaîne bi continuer tourné mais pourquoi ngeen bëgg a jël ni fin bi ñii dañuy perte pourquoi ngeen bëgg a wax lool. te bi war a mën a tourner. voilà gis nga ñoo dëggoondoo kii tamit ba tey li nga xamante ni loolu la wax moom mi ngi mi ngi dëggal ni mbir mi lu am la ba mu ngi wax ni sax euh, dimbalante la mi ngi mi ngi wax ni sax dimbalante la te borom bi moo ñu njëkk woo ci dimbalante. kon gis nga genre yu mel nii ñoom toujours ñooy lor ñu bëree bëree bëri parce que tey kii képp koo xamante ni dégg nga ko danga naan ah lii lu am la keneen tamit ni lii lu am la tey rawatina nag yàlla boo dégg kii boo ko dégluwee ba noppi. nga dem sa koñ gis kenn ku ni la ah man de am naa nàngam day day am léeg-léeg di nga si gis ñoo xamante ni dinañ leen jox seen alal comme ni ñu ko waxee sànq mais ñooñu noonu ñu jox seen alal mooy nekk ñi nga xamante ni ci la nit ñi di mën a jaar pour mën a def arnaque parce que tey bu ñu la wanee nii euh, ñu ni la tey xool leen benn Moussa bii jox nañ ko 80 000 am donc képp koo xamante ni da ngaa dëkk ak Moussa da ngay gëm ni li mu li li ñu wax nii lu am la nga dem uti ji nit jéem leen sensibiliser soo leen waxee ngeen leen euh, xool leen Moussa amoon na. Moussa ni ah waaw maa ngi nii joxoon nañ ma su ko defee noonu lay toppalantee ngay dem di dajale ay nit di dajale ay nit mais ëllëg lan moo la mën a donte ni jot nga sa alal ba pare mais nit ñoo nga dajale noonu ëllëg lan moo la si mën a fekk ak ñooñu lan moo la wóor nii ndax dana continuer danañu continuer di jot seen alal am na ñoo xamante ni jokkoo nañu ak ñoom ñu xamal leen ni carrément lii bon ñenn ñi dañu ni ñoom. ay promoteur lañ ci sax ñii ni ñoom gis nañu ni dara néewu si euh, mbir la boo xamante ni képp ku ci war a teggi di nga teggi ku warul teggi ñi delloo leen seen alal mais nag ñaar ñii moom joxe nañ ay preuve ni que ni ñoom dañ leen cee nax ku ci mel ni Ndeye faatu saar Ndeye faatu saar benn soxna la soo xamante ni moom itam nee na da koo gis rek am ku ko def statut mu envoyé ko message ñu communiqué kooku expliqué ko par la suite nee na mu laajte kooku ay information kooku expliqué ko lépp loo xamante ni moo ci waroon mu daal di jël alalam def ko ci mu ngi ci def 10 mille ak fere yi mais nee na ginnaaw bi mu ko dugalee chaîne bi di avancé di avancé di avancé di avancé moom it mu dem di am ñu mu indi ña mu indi dem am ñeneen ñu ñu indi ñiy avancé di avancé ba nee na fañ leen waroon a joxe seen alal nee na ñu tëj groupe bi ba pare joxuñu ko xaalisam delloowaatuñu ko xaalisam tëj groupe bi noonu la perte li nga xamante ni mooy 10 000 francs yam ci jotoon a dugal léegi nag est-ce que perte bi si moom rek lay yem moom dafay perte ñi bokkoon ci suufam ñëpp tamit dañuy daal di àndandoo perte te pourtant ci même groupe boobu am na ci ñoo xamante ni jotoon nañu tegg seen alal kon gis nañu li nga xamante ni noonu la mbir mi di tëddee dañuy jëfandikoo ñenn ñi ñenn ñi la utiliser ngir mën a basé wu si ñooñu ngir mën a nax ñeneen ñi parce que tey bu fekkonte ni mbir moomu dafa am nga xëy rek daal di ñëw gisoo kenn koo xamante ni jot na see am dara su boobaa euh, kenn du ci bëgg a dugg mi ngi mel ni tey euh, yenn jeu yi nga xamante ni dañ koy faral di gis surtout ci euh, màggal yeeg gàmm yeeg yooyu ñenn ñi di ko def nan la ñuy def dañuy faral di gis ñoo xamante ni nii dañuy ñëw di gagné moom la gars yi di wax naan ñii sax ñoom ak ñooñu ñooy ànd di nga si gis ñoo xamante ni dañuy ñëw di jouer di gagné di di gagné léegi nag ñiy seetaan ci ñuy gagné lañuy ñuy basé wu ngir mën a jouer parce que bu ñuy seetaan gisuñu kenn ku gagné doo gis ku sawar kon mbir mi tamit noonu la demee dina ci am ñoo xamante ni dañuy dañuy dañ ciy teggi carrément nit ñi di gis mais ñoo ñu noonu di teggi ñoom lañ leen di tegal seen ay bët ngir nit ñi war ci mën a basé wu ba mën a indi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ki nga xamante ni tamit mooy Khadija Sall moom tamit dund na lu ni mel comme li nga xamante ni moo dal Ndeye faatu saar moom moo ko dal moom it jokkoo ak waa Seneweb expliqué leen même chose ni que ni loolu bokk na ci mbir boo xamante ni bu ko dal la. mais moom sax nee na mbir mi méttiwu ko parce que li mu ci def ci alalam taxu ko bëri waaye dëggal na ni moom jot nañ ko cee jot nañ ko cee nax. am na ñeneen ak ñeneen tamit ñoo xamante ni jokkoo nañu ak ñoom am na ci benn waay yoo xamante ni mi ngi ba bitim réew jokkoo nañu ak moom téléphone mu ñuy xamal ni moom. bokkoon na si ba jotoon na xaalisam moom mais nee na finalement ay menaces la ci doon mujj di jëlee mu ni am na ñoo xamante ni dañ koy menacé jokkoon nañu téléphone man ak moom mu ñu am na mu ma am na ci ñoo xamante ni dañ koy menacé dañ koy dañ ko ciy menacé lu ne ñu ko ko ciy wax dañ koy menacé bu baax a baax parce que pourquoi parce que nee na moom ci biir groupe bi ñooñu si am na ci ñu fay nekk di ko gérer ñoo xamante ni kenn du gis seen ay numéro léegi nag par par par la suite ñooñu à un moment donné dañuy jékki-jékki rek xool ci ñu njort ni moo ci gën a feebal wala kenn ñu choisir numéro am euh, di ko jéem a chantage wala yeneen ak yeneen mais kon dafay jaadu ñun sénégalais yi ñu gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax beneen bi topp tamit mooy ñi nga xamante ni tey ñooy dem di dajale ay nit di leen jéem a indi ñooñu nañu xam ni euh, mbir bu ni mel am na loo xamante ni loi bi sóoraale na ko ci loolu tamit nañ ciy bàyyi xel parce que tey. ci mbir bu ni mel ci article 383 ci code pénal sénégalais bi wax nañ ñu ni genre délit bu mel noonu mën nañu cee tëj nit lu tolloog euh, lu tolloog mën nañ ko cee amende book lu tolloog vingt mille francs bët 3 millions de francs CFA mën nañ ko cee amende nit waaye tamit mën nañ cee tëj nit prison lu tolloog 6 mois jàpp ñeenti atu kaso xaj na ci kon nag dina jaadu ñu xippi suñuy bët di xool bu fekkente ni dañuy investir rek ki nga xamante ni yor na 5000 am na xool lu mu a jënd jaay ko 5000 400 wala 500 yaakaar naa euh, boo ko dee 400 400 400 400 bu ah di 80 a nekk de xamante donc il ne faut jamais aimer la facilité il faut toujours essayer de travailler kon ñu gën ci bàyyi xel su ko Euh, am na loo xamante ni daal moom lu jara bàyyi xel la ñu xam ne tamit système tontine koofur bii nii dañ koy méngale ak li nga xamante ni mooy système ponzi kon nag euh, lii mooy jàngat bi ñu bëggoon a def rek du ñu def lu dul di leen jox dig daje kon nag système euh, tontine baa ngoog yéen a ngoog li ñuy wax rek mooy li arab bi di wax man shaa saddaqa aw yu kazibu ku mu neex nga dëggal waaye ku mu neex it nga weddi wax jàngook ñi leen di jox dig daje beneen semaine ak beneen jàngat ci seen chaîne info 15